Ramadan a ngi weeru xéewal jàng Qur'an yi suñu weetal naafila xiyaam ak di sellal a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi bi ngeen dégloo alquran ju neex jooji ngeen xamante ni bii ñu ngi ci weeru koor weeru koor sehru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnaas weeru koor bi nga xamante ni bii moom la yàlla wàcce alquran ni law anzalna hadha alqurana ala jabal la raaytahu xaashian mutasaddian min xashatillah kon alquran am na doole lool ki nga xamante ni nag alquran dafa nekk sa dënd Dakar Buzz da leen a andil benn concours boo xamante ni bii ñu ngi ko tudde ahlullah allazina hum ahlullahi wa xaasatu ñi nga xamante ni bii ñoom ñooy waa kër yàlla ñooñ ñooy waa alquran léegi nag concours bi ni muy demee mooy c'est pour les enfants xale yi nga xamante ni bii ñu ngi jàng pour ñu pousser leen ñu gën a góorgóorlu li nga xamante ni bii mooy jàngum alquran concours bi nag deux étapes lay doon maanaam di nga passé demi-finale ak finale pour bokk ci rek pour man plaisir la képp koo xamante ni bi yaa ngi woote woo ci bëgg alquran nga daan jël sa alal di ko def feneen andi nañ la benn concours boo xamante ni bi dina possible pour nga def ko li fi nga xamante ni bi mooy kërug yàlla ndax kërug yàlla yaakaar naa ni ku fay joxe dépense incha allah ëllëg yowmal qiyam yàlla moo la koy fay pour bëgg ay leeral ci concours alquran bi wala nga bëgg sa rakk wala sa daara bi nga xamante ni mu ngi ci daara ba pour mën a présenté wu ci concours bii nga xamante ni bii mooy ahlullah ñi nga xamante ni ñooy waa këru yàlla yi jëlal suñu numéro nga woo ñu téléphone incha allah dinañ la wax nan ngay def ba participer asalaamaaleykum wa rahmatullah فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم